chers téléspectateurs de la 7TV télé bi ñu nuru ba noppi di ñu dajale comme ni ñu koy defee rek fu xamante am na xew-xew ñu ñëw fa tey nag bu ngeen ñu gisee fi ñu taxaw ñu ngi si rond point Ngor xew-xew bi fi am nag jombul ne àdduna wërngal këpp gis nañ ko parce que léegi dara umpeetul muy li nga xamante ne moo amoon fii si Ngor gannaaw bi xale yi di jàppante ak way takk der yi nga xamante ñoom ñoo ñëwoon fii pour tabax fi mu nekkoon jàppante bu métti nag mu dox ay fani fan si biir koor gi bi koor gi des ñetti fan ba ni ñu avancé ba le 8 jàpp le 9 mu amoon benn incident bu fi am xale bu jigéen bu ñuy wax Adji Diallo âgé de quinze ans moom mu joon si ñàkk bakkanam nag mu métti lool lool lool. tey jii ñu fa yéene ko jébbal boromam bu ngor xale yi mag ñi góor ñi jigéen ñëpp génn fas yéene ànd ak ñoom. pour jébbal ko suñu borom ñëpp àndandoo naqarlu ko ñu ngi fii nag si biir ñu fa yéene ànd ak ñi nga xamante ne ay notable la ñu nekk si dëkk bi laaj leen xew-xew bi nañ ko dundee papa ñu ngi lay nuyu. waaw ñu lay fay. waaw tey ñëw fekk leen fii. nga xamante ne fi la ñuy defee waajalee xaar ki nga xam ne moom mooy aji pour fas yéene ko jébbal boromam. waaw comme ni nga ko gisee rek euh, suñu doom aji euh, Farma Diallo moom la ñuy xaar nii euh, pour gunge ko si këram gu mujj su ngeen gisee yu ñëw taxaw fii parce que fii c'est un lieu symbolique parce que problème bi fii la dooree mën ngeen ko jël mooy seng yi ngeen gis seng yu bleu yi ñu entouré c'est le parking de yi nga xam ne par exemple moom la gendarmerie taxawoon temb. ne koy jël lépp tabax ko donc ñun ñu opposé ci bañ te ba tey dañu taxaw opposé ne ñu donc di xaar suñu doom pour jël ko ànd ak moom gunge ko dugg ak moom ci biir dëkk bi denc ko si sëg bu ñëwee nag nañ ko teeru fii ànd ak moom marqué une nuit de silence fii ci bërëb bi xam ne moo waral li am tey ñu ànd ak moom gunge ko ba sa sëg yi denc ko ñaanal ko yàlla te di xamal ne nag Sénégal gépp ak à travers tout le monde tout le monde entier que ni Ngor fa ñu taxawoon fa la ñu taxaw ba tey delluñu gannaaw tey delluñu gannaaw ëllëg on prône pas la violence mais la paix ñaar ñoo ko seq ñaar ñoo koy def mais kenn mënul taxaw di def la paix keneen taxaw di def leneen du ko nangu nag on n'appelle pas à mais nit ku nekk sañ nga taxaw li nga moom nga défendre ko taxaw ne lii euh, maa ko moom sañ naa taxaw défendre ko loolu mooy suñuy wax ju jëkke te mooy loolu suñuy wax ju mujj ñun ñëpp nag kenn sa xool neexul bu ngeen gisee ñu sol tenue yu blanc blanc nii tenue blanche c'est pour juste marquer la mémoire de Adji Farma Diallo voilà loolu grosso mooy wax ji notable yi xale yi jigéen ñi ñëpp daje nañu fii pour gunge ko si këram gu mujj. mu nekk xew-xew wax na bu metti la malgré loolu yëpp am fan la yëf yi toll parce que ñu ngi gis ba léegi ñu ngi def seng yi fi nga xamante ne moom moo waroon xeex bi. waaw nan ñu si woon wax sax parce que tey bésu ay fa Adji Farma Diallo la quoi mais comme nag ñu si woon nañ wax tuuti seng yi moom mu ngi fi nekk rek bu mais ñun fii ñu taxaw rek mooy que ne ñun partagé wu ñu tey partagé wu ñu ëllëg l'idée de partage masul nekk suñu xel te nekk suñu xel bien vrai que le président il a saisi l'opportunité pour arranger mais sañ na wax moom bëgg-bëgg am parce que loolu mooy rôle am il est dans son rôle mais ñun li ñu bëgg mënuñu cohabiter parce que ñaaw na ba pare bu demee bay nit dee ci am ñoo xam ne dañ ciy jël ay laago pour toujours des handicapés pour toujours te ñu ko def ñu ngi nii taxaw tëj suñu buntu dëkk barricade ñu tëj ñu def un blocus donc ñaaw na ba nepp bu noppi koo xam ne loo xam ne ñaaw ba noppi rek mënatoo composé ak moom buñ taxee fii gendarmerie taxaw à côté lycée mais nan la ñuy composé ak ñoom ba pare rey nañ suñu doom nan la ñuy ñoom ñoom kay nañu dem rek abal ñu c'est aussi simple mais lu waral tax affaire bi yàgg parce que le 9 la xale bi le 8 la amoon blessure bi le 9 mu gaañu ba tey la 18 xaw ma 19 lan moo waral tax boobu ba léegi ñu ñu doog a jot koox bi tey. waaw mais xam nga aussi day am ay lenteur parce que si fànn bi mu génne àdduna la. fànn bi mu génnee àdduna gis nga bi mu génn daal am na benn communiqué boo xamante ne euh, le ministère de l'intérieur wax na ko am na aussi euh, ñun waa dëkk bi def nañ contradiction ne loolu mu wax amul donc y tout ce processus boo xamante ne par exemple moo waral mu jure nii parce que am na autopsie am certificat de genre de mort bi war nañ ko établir ainsi de suite ainsi de suite pour que justice soit faite donc moo waral procédure bi guddi nii waaw et puis daf baax parce que aussi euh, il faut justice que justice soit faite et justice soit rendue pour Adji ñu ngi leen di masawu li nga xamante ne moo fi taxaw population Ngor yëpp tey ñëw fi pour mën a rendre hommage Adji Fatmata Diallo moom. waaw ñu ngi nuyu ñëpp euh, dem bés bu tiis tey ndaxte suñu doom dañu bëgg a teeru fii gunge ko si dernière demeure am ñaanal ko yàlla li mu doon def si àdduna yàlla na ko rëccu te eggali ndawam sa àjjana yu kawe yi. voilà affaire bi nekk xew-xew boo bu métti loolu la ñëpp àdduna yëpp gisandoo ko en tant que waajur dëkk Ngor noo ko yëgee. waaw ni ñu ko yégee métti na c'est à la fois triste et désolant ndaxte ouais. une revendication légitime euh, moo dérivé ba yegg si fii euh, revendication lan la ndaxte seng yi ngeen di gis nii euh, ça c'est pas un titre d'état lii c'est le premier titre bi nga xam ne moom lañ exproprié jox ko Ngor. pour une extension fi ngeen di gis nii ñu koy wax 45 01 devenu 94 92 25 538 muy le premier titre sur les 28 titres yu ñu jox Ngor pour extension en 91 donc li du titre d'état la état bu exproprié jox ab dëkk pour mu am extension warul mën a ñëw def fi lu mel nii donc revendication boobu moo yëkki dëkk bépp toute la communauté ñu leen massa bu baax a baax kon ba léegi malgré loolu am na mais yéen bàyyeegu leen que ne da ngeen di seddee cinquante cinquante. non mënuñu ko bàyyi mënuñu ko bàyyi dans la mesure où lii ngor moo ko moom et c'est très symbolique ngor moom moom lii ah Macky Sall nag kilifa la dafa woote dans des conditions très très très difficiles bi mu wootee aussi nangul nañ ko ñu dem lii mu wax c'était pour apaiser mais la communauté ngoroise ne va pas accepter ça lii duñ ko nangu lii am nii ah danañ waxaat ak moom. na seet feneen fu mu leen jox parce que ku xam lébu xam ni muy dunde faudrait pas que des tensions des tensions existent dans une communauté et lii conflit lay indi éternellement danañu waxaat ak moom mu seet feneen fu mu jox ñii ndaxte suñu njaboot ñun xam nañu suñu njaboot fi mu ne nii y a des invalides am nañu suñu mag ñàkk seeni doom mais nag terewul ay kilifa lañu xale yi ñu ngi leen di calmer toute une communauté bu ne bëggul bëggul Euh, les autorités administratives coutumières dañu war a déglu les communautés le peuple est souverain peuple lu mu bëgg defal ko lu mu wóogul nga bàyyi donc lii mënuñu ko bàyyi noonu il faudrait que ñu waxaat ak le président de la république cinquante cinquante la ñu bëggul fii il faudrait que mu seet ñi feneen fu mu leen jox li ñu la wax mooy dëgg lii source de tension source de conflit lay indi pour toujours donc il faudrait que mu set fu mu leen yóbbu loolu mooy wax bi loolu la communauté bi bëgg loolu la suñu mbokk bëgg ñun loolu la ñu bëgg ñëpp taxaw fi di xaar corps bi pour ñu ñëw jébal ko boromam. waaw waaw loolu moom gis nga ko moom moo ñu tax a taxaw fii parce que bëgg nañ ko teeru teeru teeru héros waaw parce que xeex bi mu doon xeex xeexu dëkk bi yëpp la woon donc bu yàlla defee nag mu ñàkk si bakkanam laaj nañu teeru ko teeru boo xamante ne wala gunge gunge boo xamante ne bu mucc ayib lay doon moo waral suñu teewaay fii nag di si boole nag di am naqar ak tiis franchement mais di si sant yàlla parce que dogalu yàlla rek lañ koy jàppee waaye nit génnu si nit génnu si te daa am benn message aussi bu ñu bëgg di lancer parce que bu ñu demee ba kilifa yi gis nga ko di encourager rey yi te ñoom ñu waroon a encourager bañ a rey yi loolu dafay jaaxal nit ñi parce que bu ñu demee ba naan yu ni mel ku ci dee safara nga jëm yooyu boo koy boo koy faral di wax da ngay encourager ñiy rey te lu nit ñàkk-ñàkk xam-xam war a xam ne ne ku ñu boom sax gis nga ko war ngaa war yonente nee na ah, sa kër aljana la kon boo demee ba nekk ay kilifa nit ñi yaakaar si yow nga war a wax lu am solo lu jëriñ nit ñi lu encouragé ñi ñi mais ngay des ginnaaw gis nga ko di découragé nit ñi di wax loo xamante ne sun déggu euh, islam nangu ko islam nangu ko ku ñu rey si manifester safara nga jëm loolu amul fen au contraire ku ñu rey si yu mel sa kër aljana la war a doon lii nag dama bëgg kilifa yi dégg ka gis nga ko wax lii mu arrêté parce que jot na pour mu cesser rey yi bare na te il faut que ça cesse il faut que ça cesse te yàlla rek tax waaw kon gis nga ko nii rek la fi demee quoi mënuñoo continuer wax ji ndigeex ndaxar daal. liggéey xew-xew bi nga xam ne dal si askanu Sénégal yëpp on peut dire. comme ñëpp ni nga ko yëgee rek lañ ko yëgee daal waaw. ni ko ñëpp rek lañ ko yëgee parce que ñëpp gis nañ ko waaw kay nag ku si ne gis nga te lu ñu bokkal doom ji ñun ñëpp ko bokk. métti na trop mais nag euh, ñu ngi sant yàlla daal loolu dogalu yàlla moom kenn mënu ko kenn mënu ko esquiver quoi. ngay notable si dëkk bi nekk jaraafu dëkk bi yu mel nii dal si ak njaboot. waaw njaboot gi ñu ngi leen di masaw te di leen téye ñoom ñëpp di leen ñaanal yàlla aussi parce que boo amee njaboot boo xamante ne mën na la taxaw li ngay def mooy sant yàlla bu baax te taxawu nañu ni ñu waroon taxaw ñoom ñëpp donc suñu njaboot tey euh, fier nañ si ñoom fierté la ñu am si suñu njaboot yëpp nag kon ñu ngi kontaan baax si ñoom te di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm ak salaam ak sutura te barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf jërëjëf mu ngi noonu yaay booy ñu ngi lay mas. laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha laa ilaaha illallaah laa laa ilaaha la ilaha illallah muhammadu rasulullah waaw aha voilà mu ngi noonu lii moo waral coow li voilà mu ngi nii voilà voilà mu ngi nii mooy fii waaw fii moo waral coow li gis ngeen xale yi dañ ñëw ba foofu taxaw fa dafa benn une minute de silence mais ku nekk sa deret tam dafa yëngatu waaw dafa yëngatu xale yi seen deret moo yëngatu donte ñu ngi dem si levée di corps bi néew baa ngi nii mais xale yaa ngi continuer ñoom itam di dóor fi nga xamante ne fi la yëf yi amee li waral coow li. on n'y peut rien waay waay c'est la jeunesse c'est la jeunesse de dañu ñëw bi xam ne fi la yëf yi amee c'est la jeunesse de Ngor c'est la jeunesse. c'est la jeunesse de Ngor c'est la jeunesse de c'est la jeunesse de Ngor c'est la jeunesse de Ngor ñu ngi dem di jaale ji ki nga xamante ne moom la ñu war a yóbbu robi ko mais tension bi dafa commencé waat vraiment waaye xale baa ngi romb néew baa ngi romb mais tamit xale yi ñoom ñëpp dañuy excité parce que bi ñu ñëwee ba si gendarmerie ñoom ñëpp seen yaram dafa tàng ñu commencé waat affaire bi mu nekk loo xam ne doy na waar doy na waar doy na waar kuñ si rayee ñu ñun ñu rey parce que boobu léegi ñu ngi ñu ngi muñ yaay doomeeraam lañ xoolal xale bu ndaw mi 15 ans 15 ans waroon nekk avenir ñu nag mën ne ay dëmb si kaw ñun ñi eh ñun dañ bañu tuñ si dara kuñ si rey ñun dañuy rey barke salatul fatiha ànd ak dal comme ñu ngi dem di robi ji. dañuy dem di respect xoolal li ñu bëgg def mooy fii dañu fi ñëw taxaw def suñu une minute de silence waaw mémorial sa xale bi parce que du ñu rey suñu doom ba pare duñu am lu ñuy tere fii nii que ça soit la première la dernière fois Macky Sall na jóg si ay golom yi moomu ñu ñi ñëw. Ah. voilà mu ngi noonu gis ngeen ko mu nekk loo xamante ne nii lu doy waar loolu la notation bi am mu nekk loo xam ne ngor yëpp ñu ngi sànni seen bët si suuf mu loo xamante ne lu doy waar lool lool lool la. ñu ànd ak dal rek lu ci mënti am nañu ànd ak dal nank rek waaw. waaw mu ngi nii nag nii lañ ko gisee ñun ñëpp parce que ku ne am na lu la naqari ñu ngi ngor dañ am lu ñu naqari lool. askanu ngor ñu ngi gunge seen doom ak ay sikkar ku xam ngor yoof wakaam xam ne bu ñuy jébbali néew boromam noonu la ñuy def dañuy sikkar ba àgg armeel waaye tuuti kon bi ñu rombee alkaati yi takk der yi nekkoon foofu ñu jàppante ak ñoom ba dënn yi commencé fa jóg mais yàlla defaa na si jàmm ñu ngi continuer suñu yoon pour dem ki nga xamante ne mooy armeel ya pour jébbali ji suñu borom aji jàllo mi nga xamante ne 15 ans la am askanu Ngor yëpp nag génn mu nekk lu métti lool. waaw mu ngi noonu ba tey ñu ngi continuer rek ah waa Ngor yëpp génn àndandoo di massawu seen doom ji nga xam ne moom la ñu ñàkk muy Aji Fatmata Diallo âgée de 15 ans foo romb Ngor ñoo ñu génn ànd ak yow. góor jigéen ñëpp àndandoo di gunge seen doom. yaay booy ñu ngi lay nuyu. lay sant. ngeen di masaw bu baax a baax. masa sa wàll. ngor yëpp génn àndandoo di gunge seen doom pour mu dem si këram gu mujj. sant yàlla yaram daw na yaram daw na macha allah xol yëpp tooy na xol yëpp tooy na xale bi li mu am am na ñu bari ñu ko amul yàlla na yeewoo àjjana lii yàlla na fi yem yàlla na fi yem li ñu bëgg suñu dëkk bi yàlla nañ ko yàlla defal ñëpp a ko tal ko jërë génn jëf xol yëpp tooy jërëjëf yaay booy ñu ngi lay masaw bu baax a baax kuy waaju rek sa doom xëy di dem sa xel du dal wallaahi kuy waaju rek sa xel du loolu moom dëgg la jaboot yëpp a tiit fi mu nekk jaboot yëpp a tiit dugg ñu génnuñu foo taxaw ñu ñu kar la ñëpp a tiit waaye sant yàlla yàlla am na lépp. waaw man Yoff laa dëkk mais bon xam nga rek mbokk rek moo ma indi quoi parce que affaire bi moom c'est triste wax dëgg yàlla waaw yéeme ñoo trop ñu ngi koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana bu gën a kawe waaw. mu ngi noonu gis ngeen ko tànk la ñu wax Ngor Wakaam Yoff moo tax fi mu toll nii ñëpp génn. Euh, symboliser biss bi nga xamante ne moom la ñuy rob ki nga xamante ne moom moo ñàkk kenam si li nga xamante moo fi amoon depuis le 8 jàpp 9 muy aji Fatimata Diallo age de 15 ans tey Ngor yëpp na génn di ko rendre hommage don ko yóbbu si këram gu mujj 7TV ànd ak yéen seen émission xew-xew nga xam ne lépp loo xam ne xew na ci àdduna bi xew na si dëkk bi particulièrement fii nga xamante ne mooy Sénégal dañ koy ànd ak yéen c'est touchant ñoom ñëpp jóg nañu mbokk yeeg xarit yeeg am di jàmm yi seen kër a ngi ni yegsi nañu yaay ñu ngi lay mas masaw ñu ngi koy masaw kër gaa ngi nii vraiment mbokk yëpp jóg nañu àndandoo parce que dafa métti nañu ñàkk seen doom mu nekk loo xam ne lu metti loolu la ñu ngi leen di bu baax a baax a baax néew bi mooy romb seen kër mbokk yi jóg ak rakk yi ndeysaan néew bi mooy romb kër ñoom Fatimata Diallo ñëpp àndandoo mu nekk loo xam ne lu metti loolu la fii mooy seen kër fi lañ koy saraxale tey bi néew bi yegsee ba romb kër gi nag waa kër gi kenn mënatu leen a téye massa massa massa massa massa massa massa metti na trop soxna si su xool néew. voilà mu ngi noonu c'est c'est c'est vraiment émouvant waaye. sa rakk la. ñoo bokk ngi lay masawu ngi lay koor bi dafa ñëw ba romb kër gi waa kër gi ñoom ñëpp jóg taxaw kenn mënatul téye sa téye sa bopp koor bi dafa ñëw ba romb buntu kër gi nga xamante fii nga xam ne fi la Fatimata dëkk mu nekk lu metti lool lool kii magam la nga xam ne kon ki ñu ñàkk xale la kii ku mu mag xale la ñu ngi lay masawu ñu ngi lay masawu ñu ngi lay masawu ñu ngi lay masawu. koy masawu ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak ñu ngi koy masawu bu baax a baax kër gaa ngi nii yegsi nañu mais vraiment metti na ndeysaan wallaay yaay jaa ngi nii ñi ñaa ngi yiw mu nekk lu métti waaye mu ngi ànd ak dal mu ngi ànd ak dal ndeysaan aha gëmal yàlla noppil noppil dégg nga yàlla la noppil noppil muñal muñal muñal ndeysaan yaay jaa noonu man maa mu jàngi man ak man yaay ji la yiw noonu mais mënul wax ndax choc bi nga xam ne moom la àndal mu nekk lu mel yaay booy ñu lay masaw metti nañu metti nañu metti ba ka jërëm yàlla suñu metti nañu ñoo bokk benn kër ñoom ñëpp fii lañ juddoo vraiment métti na mais yàlla na yeewoo àjjana ku newul méttiwul rek dalu sa kaw métti na xale bi keroog bi muy dem sama boor la toog bi muy dem yëguma ko dama seeti sama doom ñëw fekk mu dem moo neex yàlla yàlla na ko yàlla xaar àjjana métti na métti na ça fait dix jours si tey mënuñu fexe ba jot ko tey lañ koy doog jot yàlla na ko yàlla xaar àjjana xam nañ dama wax xolam moo fees mais Sénégal yëpp ñoo àndandoo ak yow naqar bi di la masaw bu baax waaw merci waay kan ngay ñaanal fa waaw merci waay merci waay allah okkaranam allah okkaranam mu ñikke mu ñikke mo yarlikemo yo allah hokkoranamo aljanna allah hokkonmo weyndu kawsara yumnik allah o yurmela yaafomo allah o yurmela yaafomo yo allah hokkonmo aljanna firawde yo allah hokkonmo aljanna voilà mbokk yi gis ngeen mu ngi nii armeel yaa ngi nii yegsi nañu gunge ko ba fi nga xamante ne fi la ñu koy jébbal boroomam bi ñu rombee léegi kër gi pap kër gi bi ñu la ko rombee léegi kenn mën mënatul téye sa bopp ndax seen kër mu ngi nii mu nekk loo xam ne lu metti la muy yaay yi rakk yi dëkkandoo yi ñëpp àndandoo mais boo gisee population Ngor tam ni ñu génnee ñëpp génn taxaw ànd ak ñoom bokk ak ñoom naqar bi mu nekk loo xam ne lu metti lool la dañuy continuer daal di xuus dugg ci biir ànd kook ñoom Ngor yëpp a amul yaay amul maam ñoom ñëpp dañu ànd sëngeem mu nekk loo xam ne lu metti lool lool lool la Ah, mu ngi noonu jullee nañ ko pare nag ñu ngi koy yóbbu ci këram gu mujj ñu ngi noonu di dugg ci biir armeel yi euh, di ko yóbbu ci këram gu mujj moom aji Fatimata Diallo mu nekk loo xamante ne lu métti loolu la askanu Ngor yëpp nag génn ànd ak moom mu ngi noonu xale yu góor yi ñu ngi dem di ko jébbali boroomam ñu daal di leen di bàyyi rek ñu daal di dem jébbal ko boromam bu ñu paree ñu continuer ak yéen. lii kenn ñaan woon mu am ngor ngir ngor ñun jàmm lañ xam jàmm lañ mas a doxee lii nii xew-xew la buy jàll mais ça va laisser des traces traces yu metti parce que dund population bi li muy dund si ñetti événement yi passé dafa doy war dafa doy boo duggee si ay kër yàqu-yàqu yi bare na boo duggee ci yenn kër yi gaañu gaañu yi bare na mag ñi xale yi jigéen ñi ñëpp sonn ci mbir mi donc tey jii soo gisee lii am dal bi am am na délégation boo xam ne mu ngi waxtaan ak kilifa yi demoon nañu toog ak président de la république wax ko li nga xam ne moo naqari wax ko li nga xam ne moom lañ soxla waxtaan nañu ñetti waxtu te président am na proposition yu mu defoon donc proposition yooyu man li ma ñaan président mooy proposition yooyu yëpp nañ ko appliquer le plus rapidement possible loolu mooy mën a indi dal gi dégg naa sànq ñu ne xale yi tey woon am na ñoo xam ne bàyyi nañ leen démb am na ñu ñu bàyyi tey te ne ñu ngi si ñu ngi si yoon pour ñu bàyyi leen loolu bokk na si li nga xam ne moom la dëkk bi doon laaj en premier lieu li si des nag nañ ko bàyyi si loxo kilifa yi ñu waxtaan ak autorité yi comme ça ñu mën a trouver solution boo xam ne mooy arrangé ñëpp mooy arrangé Ngor mooy arrangé état bi mooy arrangé gendarme bi mooy arrangé ñëpp su boobaa euh, jàmm ji xam ne moom lañu ñu oote boo gisee tey ñu ngi sol lu weex lu weex ñëpp xam nañ ne le blanc c'est la couleur de la moo tax ñu ñëpp ñu sol lu weex tey ñëw teewe mbir mi mbir mu metti euh, maa ngi toog à la place de parents fi mu nekk nii parce que ñoom xale bi mu doon jàng te xam naa ne ñu bare seen yaakaar ci moom la nekkoon tey yaakaar tas na mais li ñu ñaan rek mooy yàlla xarek aljana mu yeggali ndawam si si barsax loolu daal laa amoon si li may wax si lu gàtt xol yee fees. xew-xew bi am Ngor ñu ñëw tey ñu doon rob seen doom ban yëg-yëg nga am en tant que nit koo xam ne ku ñu xam la ku dëkk fii si Ngor. ma nekk af Ngor gi dama fi dëkk sama yaay ngi koñ bii maa ngi ñaawlu trop ni nga xam ni takk der yi ay mercenaires lañ tudd xam mais ay gendarme ak ay policiers duñ defee nii quoi. sama bi ma taxawee si rob bi léegi sama bët yëpp dafa génne ndox man gëj naa jooy ab néew mais kii xale la quoi kenn xamul kan la waroon a jur xale bu jigéen la ku war a ku war a génne ay ay nit si yaramam kenn xamul kan la naw ñu dóor ko bal nii mu dee nii ñoom ñooy léeg-léeg ñoom ñooy xabtal xale yi ba ñuy def leneen te fii am na ay tireur de lutte am def man mii def naa ay formation tireur su ma neexoon dem jël sama arme dem fayu fayu mais dëkk boo gis dafa am yoon ñu ngi xaar suñu kilifa yi ñu def li ñu war a def ñu delloo leen li ñu la war a delloo parce que demuñu dëkk kenn di fa xëccoo dara fii seen dëkk la. pourquoi ñu bëgg pour jàngale seeni doom si benn espace boo xam ni ñoo ko moom pour ñu am ay ministre pour ñu am ay président pour ñu am ay leneen loolu lu rafet la waaye loolu daa jëra xëccoo maa ngi koy ñaawlu bu baax lii moom vraiment maa ngi. maa ngi koy ba si fii métitlu yem téléspectateurs yi gis ngeen ko tey fi nga xamante ne fi lañ ñëwoon tey ngor xew-xew bi nga xam ne moom moo fi am ñu doon jébbal boroomam ki nga xamante ne moom mooy aji Fatmata Diallo xale bi am 15 ans te ñàkkoon bakkanam fële si manifestation yi nga xam ne moom moo amoon li waraloon waa Ngor di xeex tey nag ñu doon ko jébbal boroom tey ji nga xamante mooy le 18 mais gannaaw une semaine après ñu jot ci corps bi tey ñu ko doon jébbal borom mu nekk loo xamante ne lu métti lool la gis ngeen émotion yi ci am ngor yëpp jug takk taxaw doon euh, rendre hommage seen doom waaye gis ngeen bi nga xamante ne ni ngi doon def une minute de silence fi nga xamante ne fi la travail doon am jàppante ya fa woon di amaat ak xale yi ngor yi nga xamante ne ñoom ñoo fa doon jàppante waat ak takk der mu nekk loo xamante ni mag ñi wis si ndox bu sedd ba ñu mën a jàllaat defa une minute de silence bi ñëw ba si kër gi ñu gis émotion bi lépp ànd ak moom ba si morgue bi ba si armeel yi di ko ñaanal yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana ooy fal suuf si kawam di ñaan nag yàlla bu mel ni mu fi amati kon lu si mënti am rek nañu toog waxtaan ndax nee naa nañ ko jëf jooy gis nañ ko waxtaane lay jóge te émission la woon spécial euh, ngor ñu ñëwoon fi si mbirum Fatmata Diallo aji Fatimata Diallo mi nga xam ne 15 ans la am te moom gaañu woon fële si tefes ga ñu ngi koy massaw baax a baax di massaw ay waajuram ñoom ñëpp gis ngeen kenn mënul ne moom la ñu am naa leen bu a baax réew mi bu tolloo fii dañ ko toog waxtaane bu ñu ko waxtaane jàmm mën a am jàmm rek fi ñu taxaw ni symbole ngor la gis ngeen ngor yëpp a ngi génn foo sànni mbàttu mu takk ba léegi ñu ngi jooy seen doom kon ñu ngi massaw baax a baax lépp lu ci mënti am dañu ko mujj waxtaane bu ko defee solution ma a am